Ce bi, du xeexu SAES e du xeexu université xeexu réew mi yëpp la lan remise en cause des libertés publiques démocratiques parce que si nous réew moo donc, dox wax sa xalaat ay liberté fondamentale la te dañ ko war respecter parce que Sartre réew garantir en son article 10 bu la nga afficher bu la nga wax pacifiquement parce que dans un pays autant il y a la démocratie politique il y a également la démocratie sociale et la marche c'est les manifestations du fonctionnement de notre démocratie mieux des sénégalais qui se marchent qui marchent euh, sénégalais qui parce que dañu yokku courant bi yokku électricité bi ce réew ben professeur buñu jappalé mi professeur euh, Babacar Diop cours yi euh, fi muy jàngalee départ nañu sen cours depuis lundi def nañu sen amphithéâtre donc tay si tay su fekkoon mi ngi fii tey day def cours loolu mo waral euh, wa sayes ak waa SYDES si boppam décrété grève ñun ñu and ci loolu non and ci and ci ak ñom di xeex amna lenen ci biir aussi moy ken sen amna ay étudiants yo xam dañu wara soutenir sen ay mémoire depuis bobu ñu ngi xaar 31 décembre bi moy sen dernier délai donc su ñewul étudiants yooyu aussi duñu mën soutenir sen mémoire té bu euh, sen avenir mo nek en jeu donc li lambo mbir mi dafa làmboo affaire yu bëré étudiants yi sen carrière mi ngi en jeu professeur bi ñu euh, toutel ci li nga xamanteni mom moom deful lu défendre li nga xamanteni mom moy cause du peuple euh, donc loolu mo indi won ñu woote fi tay té moom ci bopam suñ ko jappé dafa am lén lu mu entraîné conséquence moy lan moy ay étudiant première année ba master 2 duñu jang autre chose mooy que étudiants yi nga xam dañu war soutenir nek ci lén duñu jang té suñu soutenirul euh fimné ni nii dañ leen déclaré forclos et puis donc duñu mën soutenir sen carré du mën dem loolu mo waraloon ñu woote fi tay té dañuy exiger parce que nak euh, instant bi comme ni nga gisee ñu ngi déjà ci terrain bi ñi fi commencé won def cours yépp dañu arrêté cours yi euh fak lettre instant bi kenn def fi cours dem nañu fasek ñun ñoo leen génnee ñi nga xam ne ni euh, ñu peut-être mo d'ordre bi euh, bu sayes dañoo dem génne leen loolu mo indi peut-être mu xaw retard ni té ñun dañuy continuer fi mu ne dañuy jox ultimatum dañuy wax ak ñom lu leer fi mu il faut il va falloir ñu libérer étudiants yi il va falloir ñu libérer euh, professeur bi sinon ñun en tout cas lutte bi commencé na commencé na nak ñom ñoy décider fu mu yem. mobilisation bi commencé na parce que au moins ils nous ont aidé à mobiliser tout le peuple sénégalais ça c'est un prétexte tay yow mi da nga wara taxaw parce que olof Ndiaye dafa ne ans ci de la laal ku sénégalais fi, dina am ay ministres yo xamné nañ leen japp. sa Sénégal ni di nga gis professeur d'université sol toge ñun buñuy def fi université toge buñ ko thèse doctorat rek lañ koy gis Bëss buñ ko muy dox la né sama euh, mané leen le pays est en danger Li buñ ko taggé ci yoon bi moy danger la wane nañ ñu ñom njàng mi soxalul leen wane nañ ñun respecté wuñu ñu kat respecté wuñu ñu universitaire école moy soxali rew révolution industrielle ci université yi la démarré nan nga bëggé soxali rew mo xamné amul borom xam-xam ce n'est pas les matières premières énergétiques qui font développer le monde c'est l'intelligence humaine qui va transformer le monde donc kooku buñ ko arrêté tay ñëpp la ñu laal soxaluñu gis nañu dans le moyen secondaire problème yu fa accord ñu nous nous respecté wuñu ko nous parce que nous suñu Babacar Diop collègue la camarade la frère Guy c'est un camarade c'est un frère Nous la ñu laal nous nous mobiliser le gouvernement n'a pas intérêt à les maintenir encore en prison ne serait-ce qu'une minute nous exiger leur libération immédiate et sans condition